tuuti yóbbul ma yóbbul ma ko Saalum Saalum ñaari néeg la ñetteel di waañ wa waañ wa waañu buur la buur di buur di buuru Saalum ayo ayo nene wolof leen dalalee di leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay di sant monsieur le maire Talla Sylla bi tax tey lii am di sant exposant yi nga xam ne ñu ngi fi ñëw di jàpp ci fête de bii lii nag bu ñu jëlee initiative def ko li ñu bëgg mooy kaay Thiès bi nga xam ni le maire si Sylla moom la woote mu mu am mu doon lu dëgg lu nekk donc le 29 30 31 kaay Thiès la woote mais ñun démarré na depuis le 20 kaay Thiès avec le marché de Noël on veut plus on veut que Thiès jaillisse on veut soit une ville en lumière li ñu bëgg mooy dëkk bi tàkk ba ku ko nekk ci monde bi dégg ko décembre bu jotee ñu ñëw fi xam ni Thiès la di dellu nag di leen gërëm di leen sant guddi na ñi ngi doon wax xale yi ñi ngi nelaw donc sant nañ leen gërëm nañ leen. de la ville de Thiès chers exposants chers enfants chers publics et invité permettez-nous de remercier chacun et chacune pour son implication dans la réussite de l'organisation de ce village marché de Noël deuxième édition à titre personnel mais également au nom de nos partenaires, nous savions que nous pouvions compter sur votre abnégation à promouvoir le développement harmonieux de notre ville. Au-delà d'un marché, nous avons voulu installer ce village de Noël à l'instar des grandes villes du monde où il est de tradition d'offrir aux communautés un cadre laïque de convivialité marchande. Nous avons pris l'initiative depuis l'année dernière d'inscrire cet événement dans l'agenda culturel de la ville de Thiès. Des plateaux de jeux interactifs et d'animations folkloriques seront mis en place pour permettre aux enfants, aux parents, au public, mais surtout aux exposants de communier dans l'allégresse. Et exceptionnellement pour cette année, ce marché de Noël coïncide avec le lancement du premier festival Kaay Thiès. Euh, sa njaboot gi fi nekkal yëpp yow ak say collaborateur ah di la félicité ci initiative boo xam ne am nga ko ci permettre aux enfants ñu am bërëb boo xam ne exclusivement consacré ci lu jëm ci activité wu Noël. muy marché de Noël nu ngi am yéene bu ci yàlla àndee fii ay weer organiser la foire internationale de Thiès boobu tamit kaay Thiès la mais waaye sur le plan économique et commercial ñu bëgg nag ca booba ak opérateur économique yi nekk ci Thiès yëpp fexe ba yenn jafe-jafe yi nga xam ne daana am démb bërki démb ci wàllu loolu ñuy tuddee ay organisation foire ñu fexe ba mu doon benn activité bu mag boo xam ne opérateur économique gu Thiès yëpp dañ koy daal di bokk beneen ba ca des euh, leer na leen ni barab bii ñu taxaw am na espace bu yaatu boo xam ne bu ñu joxantee loxo am na lu ñu fi war a mën a def loo xam ne day jariñ ñëpp moo gën ñu bàyyi ko nii loolu nag bu soobee yàlla bu ñu génnee ci lii danañ ubbi ay waxtaan euh, ak waa chambre de commerce ak waa UNACOIS ak ñoom bàyyi Serigne ak yeneen kuréel yi fi yëngatu yëpp te kenn ku ne war caa mën a gis boppam ngir lu mel noonu mën a taxaw euh, yéen ñëpp dégg ngeen ñu nii defar nañu benn plan de développement de la ville avec 75 projets fas nañu yéene it organiser benn forum de partenaires boo xam ne partenaires yi ci dëkk bi d'abord yi ci état bi ak yi ñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ay villes jumelles Thiès ak ñeneen ñu nekk ay privé ñu dajaloog ñoom pour xool naka lañ leen di mën a mettre en œuvre pour que Thiès nekk en mesure vraiment nekk une ville boo xam ne dina mën a gàttandu gan yu nar a wàccee ci aéroport international Blaise Diagne de Thiès kon yaakaar naa ni luy suñ ko waxee waxee ko ci barab bi yow la ñu njëkk a soññ yow ak ñi nga xam ne yéen a bokk lu ngeen di yëngatu beneen bi ci des balaa ma ñëw ci xale yi mooy way juru xale yi bokk na ci les femmes jàmbaar xam nga boo nekkee ci ab dëkk ñu toftal ci sa tur jàmbaar te kenn du ne moof da koo liggéey jàmbaar lañu ñoom ci ngëm jàmbaar lañu ci Pastef jàmbaar lañu ci bépp liggéey boo xam ne mas nañ leen koo dénk fii ci dëkk loolu lu ma teewe la ndax bu may def altine Thiès ñuy ànd di bale maa ngi ñoom ñooy ànd donc xam naa kuy liggéey ak kuy tappale te ñoom ay jàmbaar lañu ah, ndegam nag ndegam nag ku liggéey war a jariñu yàlla na sunu borom may ñu ëllëg kàttanu ngeen dem ba am salaire yu ëpp fuuf li ngeen di am tey et c'est vrai seeni salaire maa koy signé mais tu ma toogee sama bureau di ko signé damay am ñaari xeetu naqar benn bi mooy ñeneen ñi nga xam ne bu ñu sañoon jot ci loolu te mënuñu caa jot te mu war a mën a ne nag ndax dëkk bi salte na salte boo xam ne euh, programme national de gestion des déchets buy tàmbaliwaat dafay jaadu ñu am kàttanu jël ñeneen ñu amul woon pour ñu mën a liggéey beneen xeetu naqar bi mooy xeeb gi ma xeeb. loolu may signé di leen ko jox ndax xam gi ma xam seen liggéey ne ëpp na loolu kon yàlla nanu yàlla may kàttanu ah li kem li ngeen di liggéey ñu di leen ko mën a fay ba suñuy defati lu mel nii xëy na du seeni doom a ciy ñëw waaye ñeneen na ciy ñëw parce que dina fekk yéen ngeen am kàttanu la soxla ci wàllu cadeau ngeen mën leen ko joxal seen bopp li ci des xale yi dafa jaadu ñu won leen ne yëf yi waxuma ñoom ci lañ bokk de yëf yi ñoom ñoo ko moom kon fokk ñu di leen di bàyyi xel man mi di wax ak yéen sama bàyyi bi muy faatu juróomi at la su ma toogee ak samay mbokk ak i samay xarit di leen nettali loo xam ne sama bàyyi nga doon dund te juróomi at laa woon bi muy faatu dañuy yéemu kon xale li yàlla dëxañ ci moom moom rekk a ko xam kon ñii na leen ku ne bàyyi xel ndax yàlla kese moo xam kan moo ci doon lan ëllëg kon effort yi nit ñi di def pour di leen bégal di leen yar di leen jàngal di leen tàggat di leen encadrer ak di leen conseiller effort yooyu du yàqu ndax effort la yoo xam ne ëllëg dina bokk ci liy jariñ société bi kon Baye sëriñ yow ñi nga àndal ñëpp ñi ngi jaaree ci seen activité bi pour jottali suñu joyeux Noël ci ñëpp Sénégal chance bi mu am mooy ni suñu boroom may ba ñuy bennoo di joxante loxo di yéenente jàmm ndax donte yëf yi dafa cosaanoo ci li ñu tuddee mbiru chrétien nit ñi dem nañu ba kenn ku ci nekk da cay seet la ca am solo ca aada ja mu jël ko bokk ak ñoom jàmm jooju am fii te ñu gis ay réew yu mu ñàkk ak la mu leen jural yàlla na nu ko yàlla sàmmal jàmm jooju ba ñëpp xam ne maanaam jàmm daal moo gën lu ko nekkul sëñ Saliou Touré daf ma daan wax ni yonent bi saa salaam nee na ku doom du ràcc lu dul jàmm mu ni fas leen yéene doon ay kuddoom activité bi bokk na ci luy jëmbat jàmm jooju mooy ñoo xam ne ñi ci ëpp ci ñoom ay musulman lañu mais dugal seen loxo ci fête boo xam ne dañ koo dig tuddee activité boo xam ne suñu mbokk catholique yee ko moom ba bokk ko ak ñoom te ñun ñu xamit ne buñ ne ñi ñu tuddee musulman am nañu lu ñuy def lu mel ni ñoom itam ñu dugal ci seen loxo loolu vraiment lu ñu war a rafetlu war ko magnifier dans un contexte boo xam ne ci biir àdduna am na yeneen réew yoo xam ne leneen a nga fay xew